képp koo xam ne seen ga luy raam jëm ci defe naa ne démocratiquement war nga ko mën a wax te lépp tegu ci ab yar ak i teggin euh, mu am remarque boo xam ne dañ koo gis ci l'évolution démographique du Sénégal nu gis ci benn discrimination bu ci nekk boo xam ne euh, bu garaaw a garaaw la ndax ngi commencé développer Sénégal benn race boo xam ne race la boo xam ne amul place ci réew mi race la boo xam ne ak ngore di moo ko lal race la boo xam ne ak xeebaate moo ko lal race la boo xam ne ak parparloo ak i kompaloo képp moo ko war moo ko lal mu benn rase boo xam ne bu doon ay xar ma ne ay béli béli lañ bili bili yoo xam ne ay métissé lañ xam fu ñu jóge ci àdduna waaye mi ngi développé ci biir askanu senegal euh, dañoo seetlu bu njëkk booy takk soxna dafa am kilifa yoo xam ne seeni kàddu mënu caa ñàkk dafa am kilifa yoo xam ne ñaare mën nañ ko lijjante sax te yow doo ko yëg am na ci kilifa yoo xam ne da ngay dikk wax leen li nga bëgg ñu seetal la ko seggal la ko yabal la fa doxal la ko ba lépp sotti waaye léegi loolu amatul din seetlu senegal daal mooy ah, doomi député doomi ministre lay sëyal doomi ministre doomi député wala élu politique moom lay sëyal boroom xaalis ci doomi soxna yi lay takk sëriñ si ci biir sëriñ si la takkante walla nu xool koo xam ne ñépp xam nañ ne jongama la mu jël ko bu jëkk daawul doxee noonu bu jëkk su mag ñu baax ñi dañ la daa yebal sa kër bàjjan ba pare yónnee ak may ñu may la soxna waaye léegi loolu amatut ñu baree bare bari seenu kaat kaat lañuy dugg sëfër bi dawal ndànk ñu top ginnaw yi xalé yi xool ak yi xalé yi ba tand kan ci bëgg xamuñu ndeyam xamuñu fu mu dëkk xamuñu cosaanam taadoo rëy ne kep ñu takku fofu bu ñu xanté dëgg pour dom ju honnête juddu fa du yomb du yomb député bi nga xamante ak assemblée nationale mi ngi campagne murum député pour ñu boole seeni dom ñu sey lolu xam ngeen ko te lolu am Senegal. kilifa diine fum mu ñaane soxna ñu may ko fum bëgge bëggee ñu may ko soxna waaye doomam lu néew a néew la koy may ab talibé borom xaalis la koy may wala un élu politique wala sàcc sax yu mel nii nag mënut a dajaloo ñuy am njabot gu baax ndax kat man mën man yekinye bo amé faswa wajan wu bax do bay mukk mu dem ci jur go xamné amuñu katan yoy yefi mala la won mi jamono ji nga xamné ñepp ay julen ak i chrétien war na no mëna bokk def deug te moy riba riba kep mënu ci duggal da ngis muru bo xamné day joge italie wala amerique ñëw Ndakaaru pour la première fois di dawal otom di wër ba seen xale boo xam ne rek foq na bëtam du am jàmm mukk te bu ko ci ab dibiteri jëndal ko mu lekk mu jàllog ko fen ko pour takk ko am na suñu mbokk yoo ci kaw wi lañ jóge ndax man ci kaw wi laay jóge dañuy ñëw Ndakaaru di ambulant ba yàlla may leen xaalis ñuy ambulant ba am seen boutique di ambulant ba xaw a siiw au lieu que ñu dellu ca kaw ga wax ak seen seeni bokk duñ ko def dañuy xool ci biir marché bi jeeg boo xam ne bari na fay tànk walla koo xam ne ah weereem sor rëy na ñu xool bind ba rek ne ko dama lay takk morsan bu kaw kaw yu baree baree baree bari ay lébu lañ def seen bopp léegi ñu ñibbeetum kajoor am na ci ñoo xam ne aussi dañoo ñëwoon jàng si Ndakaaru ba seenum njàng matee ah au lieu ñu xalaat xam ne dañoo war a dellu kër xalaatuñu loolu xalaatuñ ko de fi seenum njàng àgg li ñuy jéem a xool koo xam ne xëy na buñ ko takkee mën a am communication ñoom ñu xëy yónni bàyyib jàmbur mu ñaanal leen waaye seen bàyyi du ko yëg loolu lépp dafa am euh, metti na nag ci wax ci ndax yu mel ni kenn bëgg koo wax mais parfois foog nga wax ko buñ onetul buñ onetul du mën am njaboot bu baax ndakaaru xool leen ko ndakaaru waaw ñëpp fa lañ concentré wu ku sàcc ku sàcc rek dootoo dellu kajoor yow doo dellu njàmbur doo dellu bawol da ngay fexe am kër almaadi almaadi pour bokk di jur doom yoo xam ne ah ci cocaïne bi li ñuy dëkk di jur doom yoo xam ne ah, ci sàngara si li dëkk jur yoo xam ne ay caga sax la doon daanaka kan xool suñu bopp ngir yàlla te wuñu ko doon ay jullit te xool li ñuy def kilifa laa damaa war a ñi am ñeenti jabar ab sëriñ la dama war a ñeenti jabar ab sëriñ ki eh, ab député laa damaa war fukki jabar loolu dangeen koy génn ci seen bopp te wàññiku doon nit ñu normal bu ngeen bëggee jur nit xale yi gëmatuñ dara ndax nit ñu juddoo lañ national boo ko doon tëgg du yëngal yaramu kenn xale yi seenu yaram mënut a daw ndax njurin wi la ku ni nax sa nday ba nga judd wala ñu nax sa ndey ba nga judd ci nga taxaw sa nday respecté wul sa du lu mo koy tak mo koy takku sareet xalé yoyu du yag mukk mukk mukk bon manan dara ci rew mi motax xalé amuñu jom motax race bi nga xamni mi ngi entraîner de se développer au Sénégal muy raasu béli béli comme ay xar ñoy ñoy bokk école ñoy and doomi député yi doomi ministres Les borom ak bi bi ak imam bi tant que génne ko seen bop yi jël naturellement pour ngeen jur lu bax du yomb waaw du yomb ay doomi soxna nak doomi soxna ñun ñëpp soxna ku fi sa bon gisumako ñun neuf mois lañ ëmb soxna yi nañu bokk respecter te jéem a ànd te teg ko ci yoon alal ji ñuy sàcc di ci jëli soxna alal ji ñuy sàcc di ci ngénte alal ji ñuy sàcc di ko màggal ak gàmmoo kon xoolaat suñu bopp jigéen ñi jigéen ñii ngeen topp kenn toppe noonu jigéen jigéen a gën ci àdduna mais dafa am nooy naxante ak moom waaye doo xoolu taatam rek ak xonqaayam jël sa alal def ca loolu kenn du ko def bu ngeen honnêtul bu ngeen honnêtul ci seen bopp askanu senegal yi fan jëm kenn xamu ko ndax xale ciib-ciib yi dégguñu wolof dégguñu tubaab xamuñu seen diine xale yi cause mi laa la Dubaï wala Allemagne j'étais en Belgique j'étais nangam xale yi bu ñu leen yaakaar ñu defar réew mi torox ngeen te ñoom rek ñoo fi jekku ndax bourse yi ñoom lañ koy jox ndax seen yaayee jongoma ku fi sa yaay jongomul doom bourse waaw loolu moo xew ci réew mi ba tax na dañ ci bokk jóg wax ji neexul mais nag looloo am ci réew mi te lii ma leen di wax bu ngeen ko seetee da ngeen ko gis kan bokk honnête ànd bokk jaamu yàlla dooni julit wala chrétien te teg ko ci yoon ndax réew mi noo ko bokk bu xale yi bone réew mi bon na te ndey ñoo war jiitu xale yi baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu may jéggalu may jéggalu wax ji neexul nag waaye foog na waxee ko ndax noonu la demee ci réew mi jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf